الحمد لله حق حمده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانه وتعالى في كتاب المبين من عمل صالحا فلنفسه وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا yarahu mbokki jullit yi soppe yi yéen ñiy suivre tabaarakallahu suñu émission alxayri ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk fa nga jox la suñu xoluk loxo di la nuyu di la ziar di nuyu bu baax tabarakallah kilifa di nek ci rew mi yeb xamne luñu am mag ñi la jaarale fa it nuyu tabarakallah khalifa généraux yi nek ci rew mi yeb baña fatte kenn baye baye kenn di nuyu bu baax tabarakallah ki nga xamanteni tabarakallah moy khalifa bi alhaji munir niiru di xalifa muhammad jigen di ñaan ci yalla yalla ko yalla defal jam, yalla ko yàlla yokk réew wér ak bepp kilifa diine bu nek ci rew mi ak kilifa aada yi du nuy bu baax suñu DG Pape Doumbia di ñaan ci yalla yalla ko yalla defal jam sam ko sutural ko lu mu bëgg ci réew mi rawatina ci Thiès yalla ko yalla jàppale di nuyu waa diaspora bi tabaarakallaahu jot nañ coup fili ak message yi kenn ku ci ne tabaarakallaahu cofeel bi ñu ëmbal ak yiw bi ñu ëmbal ba tax na ngay kontaan sa xol di sedd ñu ngi leen ci delloo gërëm ak cant ndax fii ñu toog yàlla xam na ni toog lañu fi suñu bopp yéen rekk lañ fi toogalal mbokk yi tabaarakallaahu képp koy wax ku ko déglu la bëgg kon yéen amuñu seen fay rawatina waa diaspora bi di nuyu it ñi dëkk ci dëkk bi rawatina Sénégal di nuyu bu baax amadu nekk première pont yére foofu diwiteri Amadou Ba moo bàcc du nuyu bu baax suñu soppe tabaarakallaahu soxna fatou Ngom dëkk cekkeen di ko ziar di ko baal di kontaan tabaarakallaahu pour bañu guddal rek tabaarakallaahu tey moom lañ ko jagleel soxna Faatu rawatina waa cekkeen jabaru alaaji Babacar Seck gi yëpp ñu dugg nag tey pour waxtaan ak yéen waaye ba ñu waxtaan ñu jaale oustaz magay cuun nekkoon borom xam-xam di ko jaale ñépp waa nasru di bu baax soxna ndey jara xaadim ak aadama cuun di leen ko jaale tabarakallahu yàlla yàlla yeesal ma dem di ko it waa mambara ndax Muhammad Jun, suñu lepp la won yalla, yalla yok leeram mbokk yi ñu dugg ci waxtaan wi tey ñu wara a fas waxtaan ak yeen ngir arafa te nag yonent bi nee alxajjul arafa at bu ñu koy wax ponk la ci ponku lislaam yi waaye ci biir ponku at boobu am na beneen ponk boo xam ne farata la muy arafa arafa nag dafa nekk loo xamante ni dafa am njariñ ci jullit bi mu bàyyi ko xel bu baax laaj nañ boroom neexamatul kubra mu ne ñu juróom-ñaari guddi yi gën ci guddi yi bokk na ci guddik arafa mu ne loo ci ñaan yàlla yàlla da koy nangu kon bayi len xel buñ ne suba la arafa ci guddi gi na nga gorlu ñaan ngir fa ci sa aajo ndax julit amul lu dul ñaan waye arafa bi tabarakallah tabaarakallaahu bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi bo demé ci benn téré buñ nan nusatul majalis dang ko ci fekk sahaba yi kenn ku ci ni yëkëti kaddu na wa waa bi degg na arafa amna lu ci lan la mu ne arafa yàlla da cee am lu mu ci def mu ne yàlla da cee teral ñeent yonent ñu ne ko yow Muhammad yonent bi njëkk kan la ci teral mu ne ko yonent yàlla Muusa gis nga Muusa wa kalimullaahi Muusa takliman keroog Muusa ba muy wax ak yàlla ca waxinam ba keroog bisu arafa la mu ne ko yàlla da koo jox carte invitation waxtaan ak moom mu dégg kàddoom mu wax ko ay doléance bisu arafa la kon bisu teraanga la mu ne ko bokk na ci bisu teraanga yi yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yonent yàlla ibrahim keroog bu mu tëralee xarma war koo rendi ñu remplacer ko xar ndax doomam ja ismail li gën a siw te ñëpp xam nañ wattaxasallahu ibrahima xalila ba mu koy def xaritam ba ba indi xarma bisu arafa la woon la ko terelee teraanga jël ismail dindi ko jël xarma def ci kon bisu teranga la ñetteel bi mooy yonent yàlla adama alayhi salaam keroog yàlla bi muy nangu tuubam ne ko buy nangu di nga teseeg xawaa mu wàcc leen ci aduna keroog ba ñuy daje mook hawa bisu arafa la woon ci arafa moo fa talakha aadama min rabbi kalimat fa taaba innahu alayhi tawabur rahim benen bi ci dess nak moy sangu-sang yi géeru géeri muhammadur rasulullah rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba diine ji mat ba yalla di wax ne yonentibi maa yónni jibril pour nga wax ne ma ak akmaltu lakum ne yow yonent bi xamal ni li ma la yónni woon de matal nga ko keroog ba ko Babacar déggee dafa jooy jooy la mu doon jooy moo tax keroog ba Aboubacar bi yonent bi génn àdduna paralysé wul xamul jaaxlewul doful li daloon Alioune Omar ak Ousmane moom dalu ko ndax keroog ba aaya ba wàcc rek la xam ni yonent bi matal na yàggatul mu mu dem moo tax borom téere yi sax nee nañ quatre-vingts jour la fi defaat doo ko génn àdduna moom Seydina Mohamed keroog discours bu mujj ba nee na arafa la ko defee keroog la ko yàlla terale ne ku lépp yow yow Seydina Mohamed lu mu yónni woon matal nga ko matal nga diine ji matal nga xéewalu diine ji rawatina ci lislaam bi jëm ci ñoom kon ñeent yonent yooyu bisu arafa la kon arafa bisu teraanga la bu moo xeloo rek benn saxaaba jug na ko waaye yonent bi saa salaam waaye léegi ñun luñ ci def mu ne danga cay woor woor bisu arafa mu ne ku ci woor waaye yonent bi lu muy am mu ne ko bi ci njëkk man saama yawma ma arafatu ahtaullahu sawaban misla sawabi isa alayhi salam. mu ne ko yonent yàlla insa li ko may mu liggeel yalla ba di ko muy suñu yonent bob di jesus christ di nuyu bu baax suñu bokk chrétien yi xamni ne ji yépp tabarakallah dekk motax mu rafet di nuyu bu baax sama xarit Emily, ak monsieur bernard mi nga xamanteni ñoo ngi cité gendarmerie nee na yonent yàlla Isaa di suñu yonent ñun julliti Muhammad nee na li mu jot a def ci lu baax ci 33 ans bu yéeg asamaan mu ne ko yàlla dina la defal yool boobu bu dee dangaa woor benn fan boobu ñu ne ko ah yonent bi loolu rek la beneen saxaaba jug ne ko waa yonent bi saa salaam ndax loolu rek la mu ne déedéet man saama yow ma arafati غفر lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar neena kep ko xamni wor nga biso arafa yalla dina la jegal say bakar yi nga jotona def ci kanam ak ci ginnaw déggal wax ci nga xamanteni julit bi kenn ku nek ci ñun lama daan farax ne ñun ne parfait kenn ku ci nek def nga lu neexul yalla kon bi dafa bax ku nek ci ñun profito pour yalla jegal la say bakar moom mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi ki nga xamante ni bëgg naa woor arafa nan la koy wooree mu ne ko jëlee nañ ko an fadli ibnu abbas radiallahu anhuma anna nabi salallahu alayhi wa sallam qaal man xafada lisaanuhu wa samcuhu wa basharuhu yowma arafa gafara lahu ila garafati allahu akbar mu ne képp koo bisu arafa gur lu nga ci wartu sa làmmiñ ci wax lu bon wartu sa dégg-dégg ci dégg lu bon wartu sa gis ci xol lu bon ak foo ko xoolee ak noo ko nga nëbbu rek ngir bisu arafa nga ormal ko mu ne yàlla dina la jéggal say bàkkaar li ko dee arafa boobu nga warmaal ba arafa bi arafa bi maanaam kon ku ko def ren ba déwén ba bisu arafaat ba bàkkaar boo am yàlla nee na da koy dindi effacé ko kon baax naa woor mu ne ko arafa bi it njëriñ da cee am mu ne ko balla mm, yenent bi ne jëlee nañ ci ibnu abbas fóore bi radiallahu anhuma nazala jibril alayhi salaam yow ma arafa mu ne ko jibril alayhi salaam bisu arafa day wàcc comme ni muy wàccee guddig leelatu xadri waaye bis boobu day wàcc toute la journée ndax yàlla ci boppam yërmande yàlla gi muy wàcce tabaarakallaahu keroog da koy tasaare ci bisu arafa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni isa kaana yowma arafa nasarullahu rahmatuhu mu ne bisu arafa suñu borom subhanahu wa taala day jël yërmandeem ba wasaare ko mel ni ku yore saako dugub nga jël ko tas ko ci tool bi ni muy saxee mu ne yàlla noonu la koy defee pour gaa ñi am yërmande yàlla te loolu lépp ngir Seydina Muhammad ndax wa maa xalaqa rahmaan shay'an li nafsihi siwaa Seydil Mahmoud wa huwa Habib ñu ne ko waaw loolu dëgg la yonent bi saa salaam waa léegi ki nga xamante ni tabaarakallaahu daa woor arafa waa bu wooree moom lay am. ñune ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna fi jannati qusur min wa dhahabi wal fidda qulta ya rasul allah liman hiya qaal liman sama yawma arafa ya aisha allahu akbar nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ci laaju aisha nako waw degna aljana amna waw aljana numu mel munuko aljana de ci biir àjjana am na ay étage yu ñu def étage yoo xamante dañ koo karole ci diggante or ak xaalis ak wurus ak zabarjat waaye nag yonent bi saa sallam mu ne ko waa buñ ko kooku kan lañ ko jox ngir kan mu ne ko ki nga xamante ni na bisu arafa mu ne ko ah loolu rek mu ne ko déedéet mu ne ko bisu arafa man asbaha saa iman يوم عرفة فتح الله عليه سلاسين بابا من الخير موني كيب كو خامني خير سوبا nga wor arafa موني يال دينا لا اوبيل فان ويري بونت يو لب لوي دوخ تشلو باخ اك يو با نمو تول يال دينا لا اوبيل فان ويري بونت 30 بونت يو خامتاني لب لوي دوخ تشلو باخ يال دان لاكو يومبال فو اوبي رك يال دان لاكو اوبي موتاخ وور arafa يال دالاي اوبي تدوتو لا تاج mune wa ku ko na man asbah sa'iman yawma arafa mune wa aghlaqa anhu salasina baban min ash-sharr mune yalla dina la tejeul fan yau buntu yo xamanteni da nga warono def lu bon yo xamanteni ni da la ci mën nga dem def lu bon lu fan fanweeri buntu ay ñaaw tëf yo xamanteni da nga wara def mune yalla da dala koy tejeul ba yow da lay yomb bon lay jafé mu ko waw aisha ne ko foofu rek lay yem fa idha aftara wa sharaba al mau istaghfiru lahu kullu arqin min jasadi allahu akbar mu bo boo nak ba dog gis nga bo dogee nga nan ndox mu bari ndox ma ngay nan mu yalla dalay da jéggal say bakar waaye nak ñak bu genn tok bu tok mu yalla genn ko ci sa yaram fu mu mën genn rek yalla da koy genné bakar ci yow mo xam ci sa tank la mo xam ci sa yaram la mu ne yalla da koy génne kon mbokk yi def lu baax amna solo def yiw amna solo arafa ngok nak ku bëgg yalla jégale say bakar arafa ngok ku ku bëgg yalla defal la yiw arafa ngok ku bëgg am yërmande yalla arafa ngok ba bi sax lu ci way ñaan yalla may la ko man sa allah taala Yawma arafa xaajatuhum min xawaaiji dunia wal axira xadaa llaahu lahu yonent bi nee na ku ci tàllal loxo yàlla ci bisu arafa nga sellal ko ñaan yàlla yàlla day faj sa ajo kon mbokk yi bu ko defee tabaarakallaahu waxtu yi dab nañu te lu fees ci li fees ci nag bi li fees ci li duuf ci nag bi fees feesul suñu waxtaan te xam naa ne suñu borom subhanahu wa taala mooy def mbiram nu ko neexee kon mbokk yi bisu arafa ngok wor len ko ndax bayi len ko xel ndax bisu arafa ña fa ne ca màkka xam nañ li ma wax ci ngay xamé ni yàlla la ma ne yow ma yaquumu wal malaikatu safan la yatakallamu illa man adhina arrahman wa khala sawaba kon na ngeen xam bisu arafa ci lañuy xam ndax bis bobu ñëpp dañuy sol lu wex bis bobu do xamé ko am ak ko amul bis bobu do xamé ko xam ak ko xamul bis bobu do xamé ko am ay alali alal ci bis bobu rek ngay xamni lu yalla wax deug la kon mbokk yi yalla ñu yalla xir ci lu baax mbokk yi yalla ñu yalla xir ci lu rafet mbokk yi bisu arafa ngok ku ko mëna wor nang ko wor xamni ku ci wor sa njariñ rek a ci ne bu ko defé nag tabarakallah fofu rek lañu yemalé suñu kaddu di nuyu ki nekk ci tabarakallah technicien bi nekk ci xaralé gi li musse geey ñu gënu xam ci musse di ñaan ci yalla yalla ko yalla defal jamm taxaway bi rafetna ñoo ngi nuyu suñu soppe yépp tabarakallah tay ji daal ki ñu ko jagleeloon suñu soppe bu ñaan faatu ngom ca cekkeen kër babakar sek di ñaan ci yalla yalla ñu yalla doli sutura bu jey muhammad seen bokk sëriñ babakar njigéen neexa bëgg ñu gën ko xam ci borom aljana mo leen di jox di dajé inshallah allah ci beneen jotaay alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu